solo bu ndaje bi comme prévu ak comme d'habitude ni mu ko daan defee rek ci population bu nga xam ne nekk nga ci njàqare mu taxawu la noonu la koy amee habitude di ko defee noonu parce que moment bi nga xamee ni jëye bi mu ngi am moom dafa nekkul woon fii dafa nekkoon orientation budgétaire mais bi mu koy yégee yónnee na seen ay agent am ak service ak délégué de quartier bi ñu def li nga xam ni moo ci waroon yëpp constaté xool ba xam li am bi mu ñëwee nag ñëw na recevoir leen jàppale leen comme d'habitude ni muy def dimbali leen parce que tamit jaboot bu nekkee ci béréb ba nattu dal ko fa xëy na di nga ko war a mën a taxawu parce que xëy na ndimbalu maire yi taxawaay bi du gaaw dina ab boo dugalee demande ñu war a dem ba perception war a mën a lijjanti loolu day yéex mais moom indil na leen soutien personnel am bu nga xam ni moom la leen di jàppale wax ak bailleur bi nga xam ne moo leen luye woon ñu delloo leen li nga xam ni moom lañ fa jotoon am mais loolu bu leen ko delloo du leen motle mais appuyer na leen ba tey dina ñu war a mën a renforcer leen ba ñu war a mën a wuti lu yaas jox na leen ñoom ñëpp séddale na leen montant bu toll ci un million. dix-neuf familles ñoo fa nekkoon. Eh, mais bi lañ euh, recevoir nañu. moo ñu óolu te moom tardé wul benn waxtu. xam na ñu ñoo tardé sax. ñëw na recevoir ñu bu baax a baax dimbale nañu bu baax may ñu alal bu bëri. ñu ñi fi ñëw ah lu tax jooyu ma ngor dama moo tax jooyu suma su mu ngi suma biir xool ndax dama kontaan ba xamatuma fu mu yem waaw bu ñëpp di doon def nii si senegal kon ñu bëri duñu sonn defal ñu lu baax may nañu lu bëri bëri. maire bi moom mi nga xam ne moom moo yaay xale bi kay. jox la ko tey lu def nii yàlla rek moo koy fay